fàddu yi nga xam ne nag bu xasee gaañu rekk jeex na mooy juróom yi liy wax xataxu nuqaa yi maanaam yuq gu weex googu nga xam ne mooy jàpp ca baat ba jàpp ca ndigg la bu xasee dog rek pàddu la yaay sëtit yooyu nga xam ne moo séq boli gi bu xasee dagg rek ba tey pàddu la li ñuy wax mbambuqe wax yi ni xaw naa naqara noo ngi koy jéggalu waaye noonu la ko la fi waxe bu xasee xotti ko ca kaw moom mbambuqe googu ba tey pàddu la ba tey yëfi biir yi bu fekkee dafa tasaaroo ne sax yëfi biir yi bu jekkee jekki sotti ko rek noonu waaye ba tey ma nga jàppaloo moom du pàddu waaye nag bu xasee tasaaroo yëfi biir yi mooy lu mel ne resuwaag gàddaam ga xol be yooyu bu fekkee dañoo tàqalikoo ba noppi waaw kooku moom pàddu lay doon ne buñ jekkee jekki sotti ko ñoom yëfi biir yi waaye teewul ñu jàppaloo nañu war a jàppaloo amaana buñ ko delloo mu dund diwee bi ci des nag mooy yuur gi ci boppam tasaaroo yuur gi nekk ci ndaal bopp li bu tasaaroo ba tey pàddu la bu yuur gi wisaaroo ba tey loolu pàddu la kon nag yi mu la wax nii bu fekkee loolee ko dal kenn ci yi mu la wax laatu na ci muy pàddu yi su boobaa jeex na rendi ko du ko tax a baax su fekkee nag benn pàddu demul ci moom nag comme ñu ko rendee bu baax loo xam nag moom daa wopp te ñu seet ba xam bu fekkee bañ ko bañ ko rendee dara dina paf daal lu wopp wopp rek ak lu wopp ci métti métti moom bu fekkee bañ ko rendee nee na paf deret ja deret ja nee na paf maanaam ba wéqu na bu baax a baax kon des na ko mën a lekk waaye bu dul loolu na kon des ko mën a lekk wala ba sa ayut lil muddu tarri ñeel ko ñu loruloo añ yàkula mu lekk almayta te medd wayees paxa te muy regg waye te zawada te mu ci yóbbulu fa inis tax naa ndeem doylu na xan xaa walis ko taraxaxaa mu wàcc ko ku loru mooy ki nga xam ne àgg na ci bu lekkul faatu su boobaa kon daañu ko may mu lekk ci mbedd te mbedd araamoon naa lekk waaye nag daañu ko may mu lekk ca ba rek daam ñu ne day lekk rek ba lekk lu téye ak ruuxam ba du dee rek waaye sañ ta rek moom ñu waxee nag mooy sañ naa rek sañ na jaa wuf sax yóbbaale ndax bu tolluwaatee ci xiif ba àgg foofu mën a lekk waaye nag bu ci wutee yóbbaale dem ba yàgg mu gis leneen lu ko ta mbedd ma nag kon day sànni mbedd ma ndax mbedd ma loolu rek moo ko waral ak ngànt li te ngànt li jeex na wala ba sa ayut bil intifaax yi jëriñu bi jul dixaa ci derub medd isaa du joxe ndéem si bi jëf na ko wala yu sàlla waaye deful julli alayhi ci moom wala yu baaxu te defu ko jaay derub medd buñ ko sibijee mooy buñ ko defaree ba taq-taqee set wecc kon daañu may ñu jëfandikoo ci yaar mooy ndoxum ñuul ak lu wow koŋ waaye boo xasee wees ndoxum ñuul ak lu wow koŋ doo ko mën a def ci deru medd woowee nga sibic waaw mën nga caa denc nag lu mel ne gerte ak lépp lu woo koŋ mën nga caa def itam ndox mu ñuul ndegam set nga ko ba mu set moom deru medd wa waaye leneen lu tooy nag ki mburu sax bu ko see tooy doo ko ci mën a denc mbaa weneen ñam wu tooy doo ko ci mën a denc te génne nañ ci deru mbaam xuux deru mbaam xuux moom ak noo ko mën defaree bi tax ñu mayee ca dara dara lu mu ñëw ñëw ñu bañ a fàtte ne deru medd woowu mëneesu caa julli mëneesu koo jaay ndax jàpp ñu ne laab na dañ caa may rek jàpp ndal woowu ci yaar yooyu wala bas ayut bi salaate ci julli xalaa juloo di sibaax ci dari ndeg mentee ida dukkiyat ndem ren def na leen wa bañ yaa seenug jaay waaw nee na ndeg ment yi mooy rab yi faatu bu dee ci yoonu maali moom dafa sib ku leen lekk di agul ci araamal ko yooyu nag nee na boo leen rendee day jàpp ne der ba léegi laab na laabuk ñu mën caa julli ak mën koo jaay wayun tafaxu def na jëriñu bi suufil maytati ci ngënalul medd wa shahariha ka waram nga wa maag lépp loo xam ne yun saxu def na ko dindee min xaa ci moom fi xaali xayaati ci waxtu dund wa nee na nag lu medd tawar ga ak leen ba mën nga koo xuuf jëriñoo ba tey lépp loo xam ne ba muy dund mën nga koo dindee ci moom te du ko yëg ndax du metti bu xasee medd itam mën nga koo jël jëriñoo waaye nag lépp loo xam ne ba muy dund boo ko doon dindi ci moom muy metti rek loola bu xasee metti jeex na doo ko mën a jariñoote waaw xam nga kawar gi kawar kawar gi mu la wax nii bu muy dund mën nga koo siisu mbaa nga xuuf ko te du tax mu metti waaye fi mu toll nii bu xasee metti doo mën a soqi kawar ga fa mu saxee ci deru yaram wa di ko jariñoo moog deru yaram wa ñooye moo ndax xam nga ne boo ko sukki ca cër yaram wa bu muy dund dana ko yëg muy metti kon xuuf ga ca kaw rek moom ngay sañ gannaaw bu mettee bu fekkoon loo reen la nag moom na der wa laabe noonu la kawar gay laabe waaye nag bu xasee medd moom la nga xuuf ca kaw rek mooy laab ba ci lu ami dungu sax dungu ndaw yi nga xam ne boo doon jàpp ganaar tey mu jekkee jeg taq say loxo te du metti ci moom suqi ku topp la te du metti loolu laab na bu mettee itam waaye dungu mag ba nga xam ne moo sax ci der yaram nga xam ne boo ko doon suqi ca ba muy dund muy jooy muy metti bu ko see metti sobe lay doon wa ahabu li gën a sopp ili naa jëm ci nun malik an yuux sala mooy bu dee fi ko fóot maanaam loolee nga dindee ci médd ma danañ taamu nga raxas ko bu fekkee ni gisoo ca sobe nde moom boo ci gisoon sobe moom faawu day war nga raxas ko wala yum tafamu deefu jariñu biri siha ci ay dungam wala ju xarniha du caageenu ci bejjinam wa adla fiha ak ay njaaxoom njaaxoom ay we wa aniyaabiha ak i bañam mooy li war a wax léegi maanaam dungu mag ba nga xam ne moo saxoon ca der yaram wa nga xam ne bu muy dund boo ko du suqi muy jooy bu ko see du sobe la xam nga ne béjjën baag weeyaag bañ ya bu muy dund boo ko dindi mu di ko yëg muy metti lu mel noonu nag bu ko see ba tey sobe lay doon man nga caa boole nag soow ma xam nga soow mën naa am ba muy dund boo ko dindi boo koy ratt du metti waaye ko du tee moom ndigam loola méttam sobe la soow ma itam sobe lay doon moom wa kuriha sibef na al intifaaxu jariñu bi an yaabil fiili ci bañu ñay bañu ñay daa am jariñ lool kon bu fekkoon ñay moom dañ ko rendi mbaa ñu jam ko jàpp nañ ne kon moom bañ ya buñ ko dee sibit sibuk seexlu dong lay doon mbaa bu ñu ne kenn sibu ko wax ji gën a wóor nag mooy bu fekkee ne ñay wa dafa medd moom bañ ya du yem ci sib dong day araam ndax bokk na ci la nga xam ne ba muy dund boo ko dindi ci moom muy metti kon wax ji gën a wóor rek moom mooy su fekkee ne ñay waxas na medd moom bañ ya duñ ko sib dong yam ci araam lay def ci wax ji gën a wóor waxadu xtulifa wuuteef na fii daalika ci loolee am na wuute waaye jàppal wax ji gën a wóor rek daal bu dee ñay wuñu rendi moom doon dañ ko cor rek sax ba mu dee kon moom buñ dee sib bañ ya itam ñu ko wax iwaar iwaar jooju liggéey yu bare bari ci lam yeeg yu bare bari su boobaa sib dong lay doon te sib ko sib seexlu rek la waaye nag bu xasee medd dëgg dëgg moom sooy bañ jàppeeku araam ci wax ji gën a wóor wama loo xam ne maata deena fii ci moom fa aratun janax min sam ci diw ñor aw saytin wala diw aw xasan wala lem daa ibin kuy ajuluy turixa kon wàcceef ko wala mi ukkal tuddeef ko lekk daa wax janax rek waaye du janax dong day wane ne ñam woo xam daa ruy moo xam diw ñor la moo xam geneen diw la moo xam lem la moo xam am ñeex la yépp ñam wu ruy rek dugg na ci bu ca sobe xasee dem rek da cay tas kenn du mën a xam fu mu tàmbalee fu mu yem su boobaa kon lu sobe si tuut tuut rek yàq na ko waaw nga xam ne boo defoon si biñ waarug soow wala biñ waarug lu demee noonu xam ne ñam ruy la daal moom bu ci dal ci sobe demee rek daal na ko yàq li muy wax nag lii mooy day ñam ruy janax day janax ba yàgg ca te yëguñu ko woon kon bu yàggee da cay tas su boobaa kon lépp dañ koy tuur daañu wax ne bu dee ñam woo xam ne ruyut moom ba noppi sobe dem ca wala ba sa ayut an yustas baax bu dee fi niitoo bi seet ci diw ga wacc fi aw nduroog moom fi xëyril masaajid jurul jàgg ya wal yu tax a vaz na wattandikoof min hu ci moom nee na bu dee lu mel ne diw nag mbaa pétrole sobe dem ca bañ ne léegi sobe si yàq na ko du tee mënees na ko taal ab lamp di ca leeral sab néeg mbaa su boutique waaye nag des ko def ci jàgga la leexee teg ko ci but ci bitti jàgg ja nag leer gay dem ci biir jàgg ja loolu mën naa nekk waaye ndegam neen diw gi am na sobe doo mën def ci làmp def ko ci biir jàkka ji ci boppam mën koo def sa néeg nag waa sa boutique nag ba tey boo ci bëggee faj ak jur mën nga koo taqal jur ga maanaam mën nga caa jiw yaramu jur ga ndax faje ko ko wa in kaana dem nekk na jaamiran di aji way turi xat kon wàcceef ko mu janax ja wa maag la nga xam ne xaw laxaa nekk na ci am kéewu mooy nekk na ci li ko wër wa ukki la te lekkeef maa la nga xam ne baqiyee des na nee na bu fekkee ne ñam wa dafa dëgër nag wuri nga weesu woon léegi bu dee ñam wu dëgër nag mel ni nga ràcc cere rek léegi jana de janax dee ca ba yàgg ci te yëgoo ko dañuy seet bu fekkee jàpp ne ni moom wóoru caa royaat ba sori ca dañuy seet rek jëmi janax ji boppam ñu jël ko sànni ak la ko wër dañu des nag moom ñu lekk ko kon daal mën nga ne rek muy janax muy seneen sobe bu fekkee moo daanu ca ñam woowee nga xam ne ruyut ni ki cere ju ñu ràcc rek kon dañuy seet lañ defe ne ca la sobe sa wara yam ñu tolni ko rek sanni la dess na mom ñu lekk ko xale wax na sax nonu sax non ne ila an yatol dara bu dafa yag muqabuha saxam nga fi ci mom fa innahu naka mom yutraf def na ko ci kulluhu leppam sax non dane bu fekke jax ya da ca de ba yag ja lol lol mom sey bo ñu tur lepp ci reja bu de ci balu ko nuro ay wax ji gëna wër nak moy liñu jëkkal wax legi moy dal buñu jappé ne mom sobis agul fep fep dañuy seet fañ defee ne fa la sobe sa yam rek ñu tonni ko tuur la des na ñu lekk ko jooju wax moo gën a wóor wala bas ayut bi taxaami ahlul kitaab yi ci ñamu ñooñ téere wa dabaihim ak seeni rendi ñooñ téere yi mooy yahoot ak nasraan ñamuñ lay jox bu fekkee nekk lu ñu rendi moom te amul sobe niki seen miskit wala seen cere wala seen tàngal yépp daal bu amul sobe rek moom te na nga ko amee dagal na ci yow noona ayut mu def ni rendi lay rendi itam buñ ko rendee ni lislaam waxe mooy dagg boliga ak ñaari sa diir ya kon dana baax daañu may julit mu lekk li nga xam ne yahut mbaa nasaraan moo ko rendi waaye nag duñ leen may ci rendi loo xam mayuñu ko julit ni ñu rendee léegi rek fab machine daal di këtt bobbeeg tàggale bobbeeg baat bi loolu du ko taxa dagal julit bi lekk ko wax wax ji gën a wóor daal lu xamul ci daal lu koy taxa dagal ba tey mbaa boo xoj ko ci courant rek ak demee noonu yépp yoon du ko nango wa kuriha sirif na aklu shuhumil yahudi lek genesu yahudi minhum ci ñoom min khayri tahrim ci ak aramal manam yahudi suñ borom dana wax ne nu seenu kaccior taxna ma aramal ci ñoom genes sangam lool nak bu xasse xam yow julit bi da ngay daal xam ne kon yahud ba genes bogé bu ko dé lek mi ngi lek lo xamne sab téré néna la li aramalon nako ci yahud bi ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بحظم نيكوي جانغ سي سورة الأنعام لمن نون نك بلوك أب يهود دي بغا ماي nga di ko lek sib nañ ko du aram ci yow sax ndax yow aramul ci yow julit bi waaye da ngay xam ne moom yàlla aaye woon na ko ko kon nag mu la koy jox ngay nangu dañ koy sib rek yam ci waaye du nekk lu aram ci yow julit bi wala yukal defu lek ma la nga xamne zakka rendi nako al majusi ab ñet ab majus majusi moy ko xamne nekul ci diine ju bayiko ci asaman manam nekul ci diine yahud ba nasran dum day jaamu aw sawara ba day jaamu jant bi ba wër yi ba wëlen xirum dal waye nekul ci diine ju bayiko ci asaman moy nekul diine yahud ba nasran ku melni koku lu rendi mom ab julit du ko saña lek wama lo xamne kaana nek na min ma ci la nga xamne laysa fi dir mi nek ci mom zakar ak rendi min tahamim seenu ñam fa laysa bi haramin du aji aram neen nak ko nga xamne jaamu ko tu xiram la balu ko nuru bu la joxe ñam bo xamne ku lu ñu rendi la mu jox la miskit mba tangal mba mburu mba len lu ñu lek dal lo xam kenn du ko rendi lolu mu fekke def ci sangara mba dara lu koy ayal kon du ay yow julit bi degam nang ko amé dagan na kon du ay rend ga rek lañuy ay lam rend rek lañuy ay wa sayyidu rabbil lillahi ngir po makruh lu ñu sibla manam rebbu rebbu go xamne loru wo ca dala neex ni rek nga ni na dem rebbu ci tay ndax xal bi neex na genn rebbu ji sib nañ ko ndax man nga bayyi ka nga xamne mom mo ca loru mom mu rebbu jariño waaye lu tee boo ko rëbboo itam mu baax boo rëbboo boo jàppee itam mu baax wa saydu rëbbu li xayri lax yu ngir lu dul porang moom mu baax lu ñu daganal la maanaam bu dee rëbb ji rëbb moo xam ne po taxut mën naa mu sax muy rëbb goo xam ne gu war la niki bu fekkee ne moom la muy rëbb rek lay dunde moom mbaa moo njabootam nga xam ne bu rëbb jiwut du am lum dunde kon rëbb ji ga lu war lay doon bu fekkee dafa jublu nag bu rëbboo saraxe ko mbaa bu ko jaayee saraxe njëgg mbaa moom kat moom njabootam yàpp da leen a yombut ci waaxu jënd ko te yàpp baax na ci nit mu bëgg a rëbb ji ndax ñu xewloo ko yooyu yépp kon rëbb ga lu ñu sopp la bu des nag rëbb goo xam ne bu reyee da koy wacc rek noonu dem mbaa sax bu jàppee aw rëbb da koy teg fee ñu koy seetaan rek noonu loolu moom rëbb ga lu araam lay doon wa kul ma lepp lo xamne qatalahu ray nako kalbu ko sab xaj al muallamu badi buñ xamal aw barsuka wala sam ngob al muallamu badi buñ xamal fa jaisun aji dagan la akluhu lekkam nga ida arsaltahu ndem yebal nga ko xale ci mom yana mo xam xañ ngay andal dërëb ji wala ngob wala shiru ba leneen ci xeet rab yi loo jàngal ba mokk rek nga ànd mo rëbb ji nga yebal ko wax bismillah bu jàppee loolu rek nga daal di koy mën a lekk wa kasaalika naka noonee maa la nga xam ne an bazat wéyal na aljawaarihu jamkat ya maqaatilahu pàddoom ya qabla qudratika ci njëkk sa attan ala zakaati ci rendeem ba tey nee na boo yebalee xaj mbaa ngoob mi mbaa siiru si mu jàppal la ci xeet rab yi laa fay asi nag fekk pàddo yi dem ana fekk nga loolu far la koy taxa dee muy pàdd yi nga xam ne bu gaañoo rek mu day dee pàdd yi gaañu na du tee nga mën koo lekk du aajo wareende wama loo xam ne adrak taxu jot nga ko xam la invasiha njëkk seenu wéyele li maqaati li ñal ay pàddoom la muy ukkal defu ba lekk illa bi zakat dara ci rendi nee na boo yebalee ab xaj mbaa ngoom mbaa leneen di ko jàmpaloo aw rab dem nga ba ak ci rab wa te fekk na pàdd yi demut kon faaw nga rendi ko doo ko lekk waaye boo sàgganee ba rendi woo kenn du ko lekk nit nga fàtte woon paaka ba pëli nga fëxe woon bi nga ñëwee nag fekk nga mu jàpp ko waaye pàdd yu demut nga jeex a jot ci nga yeex a jot ci paaka ba nag ba fara loola dee kenn du ko lekk ba tey boo ko tiiree bal bal ba gaañ ko rek noonu waaye fekkul pàdd yee dem faaw nga rendi ko boo ko rendiwul kenn du ko lekk wa kul maa lépp loo xam ne sittaxoo rëbb nga ko bisañ bi ko ci sag feet aw rubika wala sab xeej fukkul na nga ko lekk fa in adrakta ndem jot nga zakata ho rendem nga fa zakki nang ko rendi wa in fatan dem fat na bi nafsi ak bopam fukul nang ko lek iza qatala ho ndem reyna ko saxmu ko safet malam yebbi li fi fananu han ko walis la neena lo xam dang ko jam ak fet mba xej ba mu nacc rek kon sank ko lek bu fekke pardo yi dem na du aajo rendi bu fekke pardo yi demul nak faaw nga rendi ko dol ko lek waye nak lima taxam fofu rek moy la ngay rëbboo ji faaw mu am ñaw ka ba ñaw ka la jam ko ba muy nàcc waaye bu fekk aw yat rek la xam nga aw yat amut ñaw ka kooku boo ko dóoree kaña gi mbaa lu mel noonu ba mu rey ko noonu rek du baax la cay baax daal mooy nga dóor ko ko laata pàddu yi dem nga gaaw rendi ko waaye ndegam amul ñaw ka lu koy nàccal moom kooku du mën a rëbbu boo ko dóoree yat wi nu kese rek noonu mu rey ko rek mbaa pàddu yi dem rek jeex na kenn du ko lekk da cee teg nag ne lu may la nga jam da fanaan ba ci ëllëg nga war koo gis mu ne suba bu xasee fanaan moom doo ko sañ a lekk waaye waaye waaye waxi ne waxees na ne innama asaalika naka loolee fii maa nekk na ci la nga xam ne baatu fanaan na xan ko walis la ñu maa ci la nga xam ne xatal fu rey na ko ak jawaarihu jamkat ya dew am sax mu daal fett ga yu jëddu bi moom def na ko fekk fii maqaasilihi ci pàddoom fala ba as ayut bi daalika ci loolee mu ne am nañu ne kay bu fekkee da ngaa yebaloon ab xaj wala siiru wala dara mu fàddal la ko nga fanaan ba set nga doon koo gis nag loolu nga dul sañ a lekk ndax doo xam ba xam la ngay balan moo ko jàppan te gisoo ko wala leneen ci guddi gi mooy ñëw rey loolu wacc ko fa doo ko mën a xàmmee am ñu ne kon loolu la ñuy aaye waaye bu fekkoon ne da nga koo tiire balu fetal mbaa da nga koo sànni balu fett bu nga xëysee nga gis nag fa ko fett nga jam mbaa fa bal ya nekk ci yaram ba dana la wër ni kon la nga jamoon biig la kon su boobaa kon des na ko mën a lekk bu baax a baax am nañu ko càqalee noonu wala tuukalu defu lekke al insiyatu kojub nit ka bi maa ci la nga xam ne yukalu def na lekke bi ci moom asay du rabbu kojub nit mooy yi nga xam ne yow min nit ñi ne ki ganaar yeeg xar yeeg bëy yeeg yooyu yooyu nga xam ne yow min nit ñi nekkuñu jaay àll day aajowoo nga jàpp leen rendi leen waaye boo leen tiiree bal rek mbaa nga fàttali leen rek ñu daan dee mét lay doon aw nag bu fekkee dafa soxor wala yooyu doon ñu ko ñàkk fetal dañ koy fetal ci tànk ba foo xam ne dana damb tànk ba ñu je ñu jekk ko mën koo rendi waaye boo ko tiiree bal mu jam ko ci pàddu rek mbét lay doon kon njaay àll moom nga sañ a rëbb ba jàpp ko rek noo ko jàppee daal di lekk boo ko jotee rendi nga rendi bu fekkee pàddu yi dem du aajoo rendi waaye yi nekk ci kër gi dëkkal nit ñi moom miin nit ñi moom faaw nga jàpp leen rendi leen waaye doon def ni europe rek jam nam la neexee daal di lekk déedéet wal xaqiqatu gàttub tudd sunnatul sunna la mustahabatun bu di bu ñu sopp noonu mu waxee ne sunnatun mustahabatu nee nañ mat naa seetaat ndax mel bir nga àtte ci ñaari àtte te xaw a doy waar ndax ne sunna la ne lu ñu sopp la boole ci te sunna ab àtte la lu ñu sopp ab àtte la xaw naa doy waar nee nañu nag xëy na daa bëgg a wax ne sunnatun xayru mu ak kadatin maanaam sunna la boo xam ne du lu ñu fedd li nee nañ xëy na loolu la bëgg a wax kon daal jàppal ne gàtt tudd ñu wut ko tuddee ko doom ja sunna la wayu xàqu def na tudd andil mawloo di walis liir ba yow ma saabihi ci bisub juróom ñaareelam ba bishaatin ci ab gàtt mislama kem ba nga xam ne dakar naa tuddoon nan ko min sinnil udhiyati ci tolluwaayu atu tabaski wa sifatiha ak melowam wax nee na gàtt ba ñu tuddee dañ cee sart rek sart bañ daal sart ci gàttub tabaski luy doy tabaski rek mooy doy ci am tudd bu dee ci tolluwaay at ak bu dee ci melo nga xam ne lu ñu waxal ne du doy ci tabaski rek ba tey du doy ci am tudd tudd bi ñu ngi koy def ci bisub juróom-ñaareel ba waaye nag dana wax léegi ne doo waññaale bis bi nga xam ne ca la liir ba juddoo ci kaw nag muy gannaaw buñ noddee salaatu maanaam daal gannaaw bu waxtu noddu salaatu jotee daal da ci tàmbalee ba jant bi so su fekkee ne ca la liir ba juddu da ngay wañ juróom-ñaari fan ba ko juróom-ñaari te lañu koy tudd te nga bañ caa waññiwaale bis boobee mu juddoo a tax mu naa wala yux sa bu deeful limaale fi sabaxatil ayaami juróom-ñaari fan ña al yow mu bis ba ëllësi ba nga xam ne wuli da jureef na ko fii ci moom mel ni tey jii nuy jànge nii bisub altene la gannaaw bu noddu salaatu jotee nag ku juddu di dale fii ba jant bi so booy wàññi juróom-ñaari fan ñi doo wàññiwaale tey jii di altene waaye su boobaa itam ci altene rek ngay daan waat loolu moo tax ngeen tey doon bisub juddu ba bu delsee ndax xam nga bu fekkee nit ko fa judd tey ci midi tey ci altane ji su fekkee waññiwaale woo tey ngay daal tàmbale woon juróom-ñaar ñi suba ci talaata àllarba alxames ajjuma gaawu dibéer altine mu juróom-ñaar nga xam ne kon bisub tey ji bu delsee mooy doon ngénteem waaye nag bu fekkoon daa judd ca guddi ga maanaam fa jant ba soyee digganteem ak noddu salaatu di jot kon bay wañ juróom-ñaari fan ñi da nga ci waññiwaale bis boobee su boobaa na kon bëccëg ba nga weesu bu delsee mooy doon ngénte la mel ni tey jii nee naa altene la koo xam ne biig ci minuit la juddoo woon mbaa la tàmbali rek daal ci diggante bi jant ba soyee diggante ba ñu noddu salaatu da nga wàññi juróom-ñaar te tàmbalee ci altene doo tàmbali talaata ngay waññiwaale tey muy altene su boobaa nag kon yaa ngi daanu ci dibéer ndax boo nee altine talaata àllarba alxames ajjuma gaawu dibéer mu daal nekk juróom-ñaareelu fan nga xam ne kon boo koy takk takk bu gàtt ngay wax ne rek ku juddu ci diggante bi jant bi soyee diggante ma ñu noddu salaatu kon bëccëg ba nga weesu bëccëg ba nga weesu bu del see mooy doon bi su ngénteem ku juddu nag gannaaw bu noddu salaatu jotee la fa dalee ba jant ba soo ku fa juddu rek bis boobee bu dee see mooy doon ngénteem loolu daal mooy takk-takk bi wa tudd baxu def na ko ren di bax watan ci ab yoor yoor maanaam gàttu tudd ba ci jamono yoor yoor lañu koy rendi maanaam rendi gi ci yoor yoor lu ñu sopp la de moom sax gannaaw bu jant bi fenkee rek waxtu rendi wa dugg na waaye nag la dale ca yoor yoor ba ba tisbaar mooy waxtu rendi wa gannaaw ba tisbaar jotee la ca tàmbalee jëm jant bi so moom suñ ko rendee itam def nañ lu ñu sib kon diggante tisbaar jant bi so buñ ko fa rendee lu ñu sib la kon li gën a baax daal mooy ñu farlu ci def ko balaa tisbaar a jot buñ ko rendee woon ci guddi ga nag moom du baax jàppal ne faaw bala ñu ko rendi moom na jant bi fenk kon nañ góorgóorlu ci di tudd bala tisbaara jot bu tisbaar xasee jot rek moom lu ñu cible ba tey ñu leeral ne bu liir ba juddoo ci waxtu wa ñu noddu salaatu itam nga xam ne daa ànd ak moom ñu tolloo képp képp képp ñu tombe it ba tey moom mu judd ca guddi ga ñooye moo da ngay delloo bisu ngénte la bëccëg ba nga weesu nga xam ne kon mu judd ci waxtu wi jant bi soyee la fa tàmbalee ba ñu noddu salaatu ak mu tombe salaatu ba yem ca képp képp képp ñooye moo képp moom da nga koy delloo ci bëccëg ba nga weesu bu doonee gannaaw salaatu nag jëm bëccëg jëm jant ba so nag waaw kay su boobaa nag ngay jàpp ne bis boobee mu juddoo bu delsee mooy doon ngénte la wala yu massu defu laalal asabi gone ga bi shay'in ci dara min damiha ci deretam ña njëkkoon lislaam dañ daan jël ca deret ci gàtt ba di ko taqal ca bopp liir ba ndax di gàtt nga ne kon bu doonee mag day nekk jàmbaar ju mën a xeex ju mën a rey nit fekk nag booba xeex dafa xewoon lool seen jamono mais nag loolu lislaam dindi na ko nañ moytoo laalal gone ga dara dara ci dereti gàtt boobee nañ moytu itam fa ñu rendee kenn di ca jël baaraamam di ko laal ca deret ja di ko taq cib jëxam baa fenn ndax deret jooju sobe la am na ñoo xam bu ñu rendee lu mel ne am tabaski baa yooyu dañu daal di jël seen baaraam di ko laal ci deret ja di ko taqal ci seen yaram loolu ëpp naa def ndax loolu sobe la te bu ko fàttee julliwaale ko dana julliwaale sobe sobe kenn du ko taqal sa bopp te di ko tey wa yukalu def na lekk min xaa ca moom wayu te saddaxu te dee fi saraxe gàttub tudd dañoo sopp ñu lekk ca saraxe ca waaye nag deesu ci sañ a jaay dara dara dara nga xam ne ka koy fees sax waruñu ko caa jox dañ daan jox kay fees ba tey bu amee ku ko daa faj ci hôpital ni ki jigéen ñi wax sage-femme mbaa yi demee noonu ba tey waruñu ko caa jox dara waruñu caa jox itam njëkki ab tànk mbaa yi demee noonu daal moom moo gàttu tabaski ñoo yemoo wari su cee jaay dara kay fees mën nañ koo fayee leneen waaw ka doon faj itam mënees na ko jox ca leneen lu bokk te gàttu bi wa tukk salu def na damm xisa muha ay yaxam ñu njëkk lislaam dañ daan wax naa gàttu tudd bi bu kenn damm yax ya ndax day tax xale bi ci boppam nekk xale bu lompañ bu néew doole loolu nag ay wax rek la dañoo sopp ñu damm yax ya damm yaxi gàtt ba ndax bëgg a weddi loolee bëgg a xam bëgg a xam le ne loolee wax rek la waaye amut wa in xuliqan dem wateef na chaharu rasil mawloodi kawaru boppub liir ba watu suddiqa te saraxeef bi was ni ci màndaxeem min zahabin ci warus aw fiddatin wala xaalis fa daalika loolee mustahabun lu ñu sopp la xasanun te aji rafet la nee na bu ñu mënee seet nag kawaruk naar ba nam toll gannaaw bañ ko watee ñu xam nu mu diisee ñu saraxe lu toll ne moom ñu saraxe lu diise ne moom ci wurus ba xaalis loola kon sopp nañ ko xam naa nag bu dee bu xawee diis dara moom kawaruk liir ba nga am ci wurus bu sell mbaa xaalis bu sell loo cee saraxe lu toll noonu day xaw a jafe ndax xam nga xaalis bi wecce bi nga yor nii moom du xaalis dëgg-dëgg xam naa buñ ne rek nga saraxe lu diis ne moom ci xaalis bii rek moom dana yomb ndax xam nga xaalis bi nga yor moom du xaalis dëgg-dëgg bi jaay ko jënantee ci monnaie bi ci bitig yi waaye na jëmmi xaalis bi tëgg bi xel li wala wursu wa tëgg bay xel di ca liggéey ay jaaroo ak yooyu nag la ñuy wax waaw nga seet lu toll ne diisaayu kawaruk naar ba nga saraxe lu toll noonu ci wurus mbaa xaalis boobee nag waaye loolu ne bu ñu ko defee def nañ lu ñu sopp kon def nañ lu baax lu ñu sopp wa in xulli xandee réexeef na rasuhu boppam bi xalooxin ci gët badal muy ak wecc mi na dame ci deret ja àll si ja nga xam ne kaan nekkoon na tafaaluhoo di ko def aljaahiliyat way réer ña mooy ñu njëkk lislaam wala ba asa kon deetu ay bizaarika ci loole ba tey nee na bu ñu watee bopp ba noppi nag ñu taqal bopp ba lat ko lañ ndax weccee ko deret ja nga xam ne moom la ñu njëkk lislaam daan jële ci gàtt ba di ko taqal bopp bi di taqal bopp naar bi ca deret deret gàtt boobee ndax bëgg rek mu doon jàmbaar ak di ci mébét ci gaat nga yu demee noonu ne loolu buñ ko mënee bàyyi na tëjal lat ko lañ taqal ko ci boppam nag waaw kon loolu lu baax a baax la su fekkee ne liir ba am nañu gàtt buñ koy tuddee kon sopp nañu bala ñu koo joxu tur bàyyi ba àgg ca bisum ngénte la door ko joxu tur waaye nag bu fekkee kooku amul ab gàtt bu mu ko tuddee kon mën na ko wutalu tur njëkk muy àgg ca bisub ngénte ba ba tey ñu bañ a fàtte ne sopp nañ saa yu ab xale juddoo rek ñu daal di gaaw nodd ca nopp ndeyjoor ba liqaam ca nopp càmmooñ ba te fexe ba itam lay njëkk a dem ci biiram doon lu neex a neex loolu taamu nañ ko wal xitaanu làkku nga wax làkku rek waaye mooy xaraf sunnatun sunna la si du góor ci góor ña waajibat suñu suñ feddali li ñuy wax xaraf mooy ñu dagg li muur bopp sawukaay bi koy tuddee mbuñi ka dagg ko bam bam set ba boppay feeñ loolu mooy xaraf di wax làkku ci waxinu njëkk bi moom sunna la suñu fonk-fonk wal xifaadu tonniku fi ñi saay ci jigéen ña makrumatun teraanga la tonni ko itam bu dee jigéen daa xaw nuru xaraf tuuti ndax daa am jigéen ñoo xam ne daal day mel ni seen sawukaay day am lu mel ni xiru ganaar loolu nag ñu dindi ko te bañ a ëppal dindi ga